لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen dalal ak jàmm te di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu daje gi mu boog boole ko ci daje yi mu gërëm incha allah comme ni ngeen ko xamee euh, fàttalante ci diine ngir jëriñu comme ni fàttalante ci diine ngir jëriñu comme ni ko yàlla subhanahu wa taala santaane wa dakkir fa inna dikra tanfaul moo ñu tax a daje su ko defee tomb bi nga xam ne moom lañu ñu sàkkoon ci euh, Cheikh loo pour mu leeral ka ngir jur ñi mën cee jëriñu moo di benn aaya bu yàlla di waxanteeg ñun ci alquran suratu saf dinaan yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna maa la tafaaluun kon incha dina ko leeral ak lépp lu ci aju su ko defee comme ni ngeen ko xamee mel na ni bii mooy yoon bu jëkk ci ñëwu a Cheikh ci dëkk bi ngir taxawe fi lu mel nii mu di yoon boo xamante ne nii ñi ko sabab yàlla leen yàlla fay euh, seen jubluwaay ci loolu mooy rek maanaam di ñaan yàlla mu yombalal leen euh, al oustaz mën di fi ñëw ay jamono moo xam par semaine wala par weer ngir itam di fi wasaare xam-xam ngir mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk mën gën a jëriñu ci moom incha allah kon loolu mel na ni mooy sabab bu conférence bi su ko defee noonu ñu ko bëggee ñu ñaan yàlla subhanahu wa mu yombalee ko noonu itam lépp di njëriñu jullit ñi kon ci ci tëj ak tënk mooy ñuy fàttali benn xadis bu yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma maanaam jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te nit ku nekk rek la nga yéene ngay am kon incha allah ñu beesalaat yéene yi ci jotaay bi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 lima taquluuna ma la tafaluun wa sa yaduuru alxadiisu bi idni illahi xawla anniqaat altaaliya awalan annusuus alwaarida fi damm alfasli bayn alqawli walcamal ثانيا العمل الصالح واهميته ثالثا العمل الصالح وخطورته رابعا يكمن الخلل في الانفصام بين القول والعمل خامسا خطورة هذا الانفصام سادسا مدار هذا الانفصام على الدعوة الإسلامية سابعا وأخيرا مظاهر هذا الانفصام mbokki jullit yi gannaaw bu ñu santee sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa gi ñu ngi leen di nuyu ci béréb bi nga xam ne mbokk yi sabab daje fi ak ñoom yiw rek lañ jublu di leen sargal ci lool di leen ci ndokkeel di ñaan sunu borom tabaraka wa mu boole ñu yiw waxtaan wi <coughs> lii xol bi li ko mbokk mi waxee moo di benn aaya boo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf cee wax ak nun wax joo xam ne ab laaj la waaye laaj bi it nekkul laaj boo xam ne day xaar tont laaj la boo xam ne liñ ci jublu mooy won ne loolu jaaduwut xam nga ne laaj ay xeet la am am na laaj boo xam ne ci koy laaj day xaar nga tontu ko am laaj boo xam ne ci la koy laaj daf lay yëgal ne lii jaaduwul moo tax mu ne lu tax nga def lii laaj bi nag mu di yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaluun yéen ñi gëm yàlla wax ko ci seen làmmiñ lu tax seen jëf di wuuteeg seen wax laaj boobu kon jëmul ci ab yéefar ki ko tax a jóg mooy koo xam ne ci biir diine lislaam la nekk wala neena ca la nekk kon lépp lu ci aju ci wax ñu jëm ci laaj boobu ci nun la jëm ci man la jëm jëm ci yow jëm ci ku teew jëm ci ku teewul képp koo xam ne jullit nga rek tàbbi nga ci biir laaj boobu nga war ko bàyyi xel ko ngir waxtaan bi mën a tegu ci ay tomb yuñ ko mën a leerale danañ ko séddale lu jege juróom-ñaari tomb doonte it ci gàttal lay doon ndax waxtu yaatuwut te bëgg nañoo ubbi bunt boo xam ne dañ leen di déglu tomb ba ci jëkk moo di lenn ci texte yi nga xam ne dafa rot ci alquran walla ci sunna ngir di ŋàññi tàqale wax ak jëf taxale boobu liñ ci jublu mooy wax te doo def mooy wax ba noppi bañ a jëfee li nga wax ñaareel ba moo di am solo goo xam ne jëf ci baax ci boppam am na ko solo ñetteel ba moo di ñàkk solo goo xam ne jëf ju bon ñàkk na ko solo jazakallah ñeenteel ba moo di ndeke li gaar jullit yi ci xeeti tawat tawat ji ci yées ndekete mooy tawati wax ju àndul ak jëf juróomeel ba danañ jéem a wax lenn ci gravité boo xam ne wax ju àndul ak jëf am na ko juróom-benneel ba lor ji nga xam ne mi ngi wàcc ci kaw woote bi lislaam te fekk li ko waral mooy wax ju àndul ak jëf juróom-ñaareel ba moo wax jooju àndul ak jëf su fekkee am na ci sunu société bi fan la fa toll anamu ndax ñu mën caa teg baaraam wan ne lii wax la joo xam ne ju àndul ak jëf la kon tomb yooyu insha allah ci la suñu waxtaan fas yéene jëm ñu tàmbalee ko ci tomb bu njëkk bi sunu boroom tabaraka wa taala dafa wax ne yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaluun yaa ayuha alladina amanu ñi muy waxal kon mooy ñi déclaré seen ngëm ñi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ku xas seede ñaari seede yooyu moo xam dëggu na ca xol ba wala da koo wax ca làmmiñ ba ngir ragal jaasi waaye ki xas seede ñaari seede yooyu fu ñu waxee fi yaa ayuha alladina amanu muy yéen ñi déclaré seen ngëm xamal ne kooku dugg na ci biir ku ko wax rek tàbbi nga ci biir kon wax jooju jullit ya dëggoo ña dëgguwul ñépp lañ jëmale laaj boobu lu tax ngeen di wax wax joo xam ne du ngeen ko def mu teg ca ne rëy na bàkkaar bu rëy la fa yàlla bàkkaar bu rëy ba àgg ci ñi di ko tuddee ab sànja mooy bàkkaar bu mag a mag a mag a mag ba jéggi dayo màgg na fa yàlla lool rëy na lool fa yàlla ngeen di wax lu ngeen dul def al imam ibn jarir al tabari rahimahullahu taala ci tafsiram jële na ci abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhuma mu ne dafa amoon ay nit ñoo xam ne ci muminuun yi lañ bokk ci jullit yi lu jiitu yàlla di farataal jihaad nee na ñooñu day dañ daan wax naan di ñaan yàlla naan ko yàlla na nga won jëf ji nga xam ne mooy ji nga gën a bëgg ci jëf yi ngir nu mën koo def nee na borom bi nettali ab yonentam ne ko yàlla de li ko gënal ci jëf yi moo di imaanun billahi la shakka fiihi ngëm yàlla ngëm goo xam ne àndul ak si sàkk àndul ak deng-deng ñaareel ba mu ne wa jihaadu ahli maasiyatihi ak jihaad nag fi sabilillahi contre képp koo xam ne noonu yàlla la nee na bi loolu wàccee li mu ci teg daf ne wa jihaadu ahli maasiyatihi alladina xaalafu al iman walam yuqirru bihi ñooñu mooy yéefar yi nee na falamma nazala al jihaadu kariha dalika naasun min al muminin nee na bi jihaad wàccee yàlla farataal ko ci xeet wi nag nee na am ñoo xam ne loolu diis na ci ñoom mu daal di doon lu rëy ci ñoom xanaa ñu ragal ndax jihaad moom deegu xonq coy ma taxaw mu ne bi loolu amee lenn ci doomu aadama yi daal di tàmbale ragal daal di diis ci ñoom lool borom bi tabaraka wa taala daal di wàcce ne yaa ayuha alladina amanu li ma taxuluuna ma la tafaluun yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def yéen a doon wax ne da ngeen a bëgg ku leen tegtal li gën ci jëf yi tegtal nañ leen ko lu tax ngeen di ragal kon aaya bi loolu mooy sababus wàcc bi waaye nag aaya bu teddangoo boo xam ne jógul rek ngir yem ci xew-xew boobu dafa ñëw di faj di saafara mbir moo xam ne wopp la feebar la ju nekk ci xeet wi yoo xam ne su xeet wi naree jëm kanam su xeet wi naree tekki dara tawat jooju daf fi war a jóg tawat jooju mooy di wax ci làmmiñ loo xam ne jógewut ci xol waxi làmmiñ ju jógewut ci xol nuñ koy xamee moo di bu jëf jotee bu jëf jotee jëf du am waaye su wax jotee wax am kon kooku mooy feebar bi nga xam ne moom la laaye ji di faj kon kooku la taxoon laaye ji wàcc mu ngi ci biir waaye lépp loo xam ne jullit bi jël na ko engagement ci dundam bis ba mu waxee ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu engagement muy sas woo xam ne sasoon na ko boppam rekk tàbbi na tàbbi na ci biir lool loolu mooy lan mooy ki jël engagement wax ne moom ku seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu mu yeyoo dara ci jaamu walla jaamu ko di am njëriñ ñàkk ko jaamu di lor amul ku dul benn buur bi nga xam ne moo bind bindeef yi seede waat ne amul koo xam ne dañ koo war a jël teg ko ci sam kanam mu nekk royukaay boo xam ne dañuy gëm ne du juum te lu mu lu ne dañ ko war a jël lu mu tere lu ne dañ ko war a bàyyi ñu gëm ne kooku moo di ab yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkee xas nga jël engagement boobu kon yaa ko waxal sa bopp léegi loolu li muy tekki mooy lépp lu diine lislaam andeeti loolu pare naa pour nangu ko nangu ko lu muy firi mooy su dee jëf li ma man lépp danaa ko def ba mu jeex su dee luñ digle li ma ca man lépp danaa ko def ba fa sama kattan yam sama man-man su dee luñ tere danaa ko bàyyi su fekkee ne noonu jullit bi préparé na pour mel noonu kooku nag moom lañu ñu tudde muslim ki jël boppam jox ko yàlla ki jébbalu ci yàlla moo tax al islam dañuy wax ne mooy al istislaamu lillah mooy jël sa bopp jox ko yàlla jébbalu ci yàlla ne ko maa ngi nii loo digle ma def loo tere ba bàyyi engagement boobu nag su ko jullit bi xasee jël wax ko ba ñëpp dégg ko ñu ne ko yow ab jullit nga nag kon bis nekk tey la ca des kon mooy jëf saabu jëf teewee joo xam ne ndigal la mu jóge ci alxuraan wala mu jóge ci sunna nattu ñëw na nattu mooy lan mooy lu mel ni examen boo xam ne ndonga la luñ jaaroon ak moom fi béréb am luñ ko xamal ne ko bis dana ñëw ñu seet la ba xam liñ la doon wax loo dégg la wala loo déggul la ndax xam nga ca dara ndax xamoo ca dara fan nga tollu lañ la doon jàngal kon jamono yoo xam ne ndigal teew na lu jóge ci sunu borom tabaraka wa ña waxoon ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadu rasulullah nattu dikkal na leen ñi xool ba xam nan lañ koy jëfe foofa nag la nit ñay rawante nga gis koo xam ne moom waaj na ba jekk ngir lépp lu ñëw tey ndigal rek jóge ci boroomam rek li muy wax li muy wax kay mooy ndax sax na ne ci yàlla la jóge ndax sax na ne ci yonentam la jóge su ñaari yooyu saxee rek la ca tegu mooy jëf su tere ñëwee li muy laaj mooy ñaari laaj yooyu ndax sax na bu wéree ne sax na bis na ki keru bàyyi na loolu kon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon liggéey ci saxaaba yi ba yàlla xëy wàcce ko liggéey ba mat al yawma akmaltu lakum diinakum seen diine mat na nag bis nekk tey liggéey bi mu doon liggéey ci saxaaba yi bañ mel noona moo di yar leen ci loolu ñu dem ba su ndigal ñëwee ñu jëfe ca lañ man su tere ñëwee ñu bàyyi ñaar yooyu su matee rek engagement bi nga waxoon kon yow yaa koy jëfe kon ni ma ko waxee laay ji jógul ngir di régler problème xam ne dafa aju rek ci jihaad waaye dafa ñëw ngir régler problème mu wax te doo def kon gën naa yaatu li ko taxoon a wàcc xeet yi jiitu du càggi ni jullit yi rek lañ njëkk a wax loolu naka jëkk loolu problème la mas di doon mu di wax te doo def aaya ji wàcc ci banu israil te xeet wépp tax koo jóg borom bi mi ngi wax ne atamuruna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaqiluun waaw ndax da ngeen di digle lu baax ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax ba noppi fàtte seen bopp da ngay ñëw kaay leen julli nit ñuy julli nga toog bañ a julli da ngay ñëw yar leen seen njaboot ci lislaam waaye nit ñi nit ñi sonn yar seen njaboot ci lislaam nga bàyyi sa njaboot yi rek ci biti lislaam sàggat di def yaramu neen ci mbedd yi xale yi taxawaar duñ jaar ci siraatul ndax loolu dangeen di digle lu baax fàtte ndax da di digle lu baax fàtte seen bopp kon kooku yaraange la joo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ci yedd képp ko xam ne jóg na di digle lu baax te fekk la muy lu baax la muy digle du moom ma nga ca moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu baax lu mas di digle moo ciy jiitu day mu di ko def lu def lu nekk du ko digle kon kooku ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab ànd ak di jàng téere bi di xam liñ digle di xam liñ tere mu teg ca ne afala taaqiluun ndax da ngeen a amul ay xel kon ndax loolu kat ko am xel waru koo def borom bi tabaraka wa taala ŋàññi na kon foofu ki xam ba noppi di ca woote te jëfewul waaye ŋàññi na itam ki xam te jëfewul ŋàññi na ki nga xam ne xam na ba noppi jëfewul lu bon jëf ju bon a bon a bon rek mooy joo xam ne borom bi tabaraka wa taala buy ŋàññi ka koy def daf koy nuróole ak mala ndax doomu aadama ni mu ngeen jéggal lu soñ na dafa xaw doomu aadama ni mu terteeg ni ko borom bi tabaraka wa taala fonkee wax ne wa laqad karram na bani aadama su demee ba nuróole ko ak mala xamal ne la mu def rëy na buñ jàngee ci alquran nag danañ gis ne laay yi ci nekk borom bi di nuróole doomu aadama ak mala mooy yi nga xam ne day wane ne doomu aadama xam na ba noppi jël xam-xam bi teg ci tànkam jëfewu ko ثم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ñi nga xam ne dañoo wàcce ci ñoom tawraat muy téere bi wàccoon ci Moussa alayhi salaam boobu ci chifin ci yahud yi la wàccoon ñi ngi wàcce ci ñoom tawraat ñu xam ko ba noppi jëfewuñ ko yàlla nee na ñooñu niñ mel dañoo mel ne mbaam moo xam ne dafa sëf ay téere mu teg ko ne bi sa masalul qawmi alladina kaanu ñaari aaya yi la masalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfaara bi sa masalul qawmi alladina kadabu bi ayatina ayati illahi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin wala alqawma alzalimin kon nee loolu mooy misaal bi yées ci misaal yi mooy jël doomu aadama nuróole ko ak mala nuróole ko ak mala foofu mbaam la ko nuróoleel kon xam-xam bu bari bi bi nit ki yanoo yanoo yanu ba tiis mokkal a mokkal a mokkal ba bari waaye bu jëf jotee jëfewul bu tere jotee bàyyiwul tere nee na kooku moom mbaam muñ jël ay téere sëf ko ko ñooyam kon mu ne misaal mu ñaawal ngoog waaye nag waajaa ko def ñu defal ko misaal mu mel noonu kon loolu musiba la beneen aaya bi ci des taxawaru boobu moo di bi borom bi tabaraka wa taala wax ne watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu shaytaanu fa kaana min algaawin walaw shina la rafanaahu biha walakinahu axlada ila al ardi wattabaa hawaahu fa masaluhu ka masali alkalbi in taxmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas kon nee ñi nga xam ne sunuy aaya dikke na leen mooy ñi nga xam ne am nañu xam-xam ñi nga xam ne xam-xam dikke na leen ba noppi nee na ñu sulliku ca xam-xam ba teg ko fële bañ koo jëfe dem topp seytaane ak ay ndigalam topp mbewte ak bànneexu bakkan jazakallahu xeyran nee ñooñu seen misaal mooy ab xaj seen misaal mooy ab kël nee na xaj boo xam ne tàngoor wi dafa ñëw na muy def mooy génn làmmiñ wu ci bitti rek di yalkat di yalkat mooy ni muy def di appaat di xéexat nee xéexat boobu moom rek la dëkkee soo koy dàq ma ngay xéexat soo ko bàyyee bu tëddee ci ker ga ma ngay xéexat su nekkee ca naajo ma ngay xéexat noo ko mën a def rek moom day xéexat mu ne dalika mathalu alqawmi alladina kazabu bi ayatina faqasusi alqasasa laallahum yatafakkarun nee na loolu mooy misaalu ñi nga xam ne xam-xamu yàlla dafa ñëw ci ñoom muy alquran wala muy sunna ba noppi ñu wëlbati ko bàyyi ko gannaaw lii ay misaal la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo joxe ci ki xam te jëfewut boo xoolee da gis ne ci banu Israël la jëm ñi nga xam ne tawraat da ko wàccoon ci ñoom ñooñu su fekkee ñoom seen melokaan ngir ñàkk a jëfe seeni téere mooy mbaam lañ leen nuróoleel wala ab xaj lañ leen nuróoleel ànd ak ne seen téere mooy tawraat muy téere boo xam ne complété wut lamboo wut li doomu aadama soxla waaye seenu ñàkk koo jëfe teewul ñu bare noonu naka nag koo xam ne alxuraan ci boppam daf koo dikkee mu bañ koo jëfe kooku mooy yées yonent bi alxuraan wàcc ci moom mooy ci gën ci yonent yi téere bi wàcc ci moom mooy téere bi gën ci téere yi mooy bi ci gën a mat mooy di folli mboolem téere yi ko jiitu woon kon teraanga jooju ku ko yàlla jox nga xam ko am ko ba noppi won ko gannaaw kooku la chaque année misaal mañ la war a jox moo yées misaalum mbaam moo yées yi daw misaalum kalbu bi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ci la nuroo leeg ñooñu nga xam ne ñooy banu israil kon xam-xam lu mu ci jublu mooy jëf xam-xam bu àndul ak jëf amul njariñ ki xamul ki xamul dara nga xam ne layu sharia tagu teguwut ci loo xam kooku moo tax ne ki xam ba àggal jël xam-xam bi war ko gannaaw bañ koo jëfee ndax bépp xam-xam boo xam ne jëfewuñ ko kooku musiba la ci kaw borom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu yi mooy daf leen doon jàngal xam-xam ak jëf xam-xam ak jëf buñ jàngee ci alquran lu mu tuuti tuuti dañ koy jiima dégg suñ ko déggee la cay tegu mooy jëfe ko mu doon leen a jàngalaat leneen su jàngalee jàngale leen nuñ koy déggee suñ xam xamee nuñ koy déggee nuñ koy jëfee ñu jëfe ko mu door a jàngale leneen kon théorie la bu ànd ak pratique waaye lislaam xamul di théorie rekk di dem di jàng di dem di yamu te njàng moom xam-xam boobu du feeñ ci yow feeñul ci sa pas-pas feeñul ci sa jaamu yàlla feeñul ci say jikko ak sa jëflante ak doomu aadama yi l'islam xamut loolu l'islam lim xam mooy ginnaaw xam-xamul islaam a ngi dugg ci bopp nit ki xam-xam boobu daf koy suuf daf koy jox couleur boo xam ne bokkewul ak couleur koo xam ne xam-xam boobu dugg ci yow moo tax jullit bi nga xam ne xam-xamul islaam a ngi ci boppam jëmmam pas-pasam na muy jaamoo yàlla na muy jëflente ak doomu aadama yi ci wàllu jikko waru la luróoleeg lenn koo xam ne loolu nekkut ci yow moo xam ñàkk nekk ka ca moom kooka da dul jullit xamul yooyu moo tax wala jullit la sax waaye dafa jàngul ba xamut loolu war naa tax mu wuute ak moom waaye xam ba noppi ku xamul tane la wala nga yam ak ku xamut kooku ci musiba yi delloo doomu aadama ba ak doomu aadama am gën a suufe ci la bokk moo tax borom bi tabaraka wa taala nduróole ko ak mbaam wala mu nduróole ko ak ab xaj xam-xam boo gis borom bi tabaraka wa taala tagg ko ci alquran wala ci sunna xamal ne xam-xam boobu mooy xam-xam bu ànd ak jëf waaye xam-xam bu àndut ak jëf kooku sharia taggu ko fenn li wér sax mooy kii xam di wéy te jëfewut kooku duñ ko tudde borom xam-xam ci sharia du borom xam-xam waaye ku réer lañ ko melokaan biñ koy jox moo yées melokaanu li ñuy wax al jahl ndax réer xëy na li ñu tudd jaahil ak li ñu tudd baal ñaar yooyu bokkul doonte lenn lu ci nekk ah ko dee firi dañuy wax rek ku réer lëggaloo jaahil ñu di ko firee ku réer waaye baal ñu di ku sànku ku sànku ki mooy ci xamut dafa jëm ci dëkk ba daal xamul fu yoon wa jëm muy dem kooku mën naa gindiku ndax mën naa dajeeg nit ne ko waaw ana yoonu dëkk ba mu ne ko jëmal sa ndeyjoor boo jaaree ba fee yoon wi ngay dajeel kooku mooy yoon kooku mën naa ñëw ci borom xam-xam laaj ko mu tegtal ko mu daal di jaar ci yoon wi dem waaye ki nekk baal borom xam-xam la dafa xam fa dëkk ba jëm ba noppi won ko gannaaw jëm fa ca des boo waxee moom mu ne la ca dëkk ba laa jëm kooku sànku na waaye boo yeexee mu sànke boo yeexee mu sànk keneen lu tax mooy nit ñi dañ koy xool ne ah kii kat ginnaaw boroom xam-xam la moo jàng béréb sàngam moo xam nangam moo def nangam moo def nangam kooku ginnaaw mi ngi def nangam loolu day wone ne loolu war naa mën a nekk su ko defee mbooloo mi topp ci moom mu daal leen di sànk kooku mooy ab daal kooku du boroom xam-xam weneen melokaan lañ ko tuddee kooku mooy ku sànku ali ibn abi talib radiallahu taala anhu mi ngi wax naan yaa xamalat al ilm yéen ñi jóg yanu xam-xam yéen ñi jóg sàkku xam-xam ba am ko nee na i'malu bihi na ngeen ko jëfe yéen ñi sàkku xam-xam ba am ko nee na jëfe leen ko fa inna al aalima man alima summa amil mu ne ndax kat boroom xam-xam mooy ki xam ba noppi jëfe wa waafaqa ilmuhu amala nee na te fekk xam-xamam dëppoo na ak na muy jëfe mu teg ca ne wa sa yakunu aqwamun yaxmiluuna alilma la yujawisu taraqiyahum tuxaalifu sariratuhum alaniyatahum nee na mu ne aw nit dana ñëw ci jamono am nit ñoo xam ne gaa ñu jàng la ñuy waaye nee na seen xam-xam bi weesuwul seen làmmiñ ya xam-xam bi weesuwul put ga mooy làmmiñ wa seen bitti ak seen biir day wuute nee na yuxaalifu ilmuhum amalahum seen xam-xam day wuute ak seen jëf neena na ñooñu seenu fuukare ak seenu gën ëpplente ci wàllu xam-xam la waaye du ci wàllu jëf mu ne ñooñu dangay gis ku ca dem sax ba lañuy ñuy xëccoonte ci seen biir mooy géewi xam-xam ya ñu ne ah borom xam-xam sàngam def na géew sàngam boo xam ne taalibe yaa nga ko wër ñu ne ah diwit day ab géewam mbooloo mu baree fa teew ñu ne ah diwitam day mbooloo mu baree ñëw ci ab darsam nee na day mujj ñi feebar boobu dal xalaatatuñ ci gindi doomu aadama yi ak jox leen xam-xam waaye ëpp leen te ay mbooloo la mu mujj di ko xëccu su boobaa rek nee na musiba la ndax nee na dana dem ba borom xam bi sax suñ ne ko yow kat sa dars bi wala sa conférence bi wala sa géew bi mbooloo may teew ci géewu diw sàngam moo ëpp sa mbooloo na sax day daal di mere day daal di mere koox <coughs> mu ne xatta inna rajula la yaxdabu ala jalisihi an i ila gayrihi wa yadahu nee na ki daan toog fi moom sax bu jekkee ba mu yàgg mu ngi dégg ne ah diw mi daan jàng fi kat léegi ma ngay jàng ci diw nee na dana mere kooku taalibe bi mere itam sëriñ ba muy jàngee ci moom léegi kooku feebar la boo xam ci xol la nekk su fekkoon ne li ko itteel mooy xam ak jëfe ak soññee ca kooku fu nit ka mën a jàngee ji lu wér kooku itteelu doomu aadama yaag seen mbooloo bari nañ fa léegi néew nañ fa le loolu du mbiram tax koo jóg la ko tax a jóg mooy yàlla baaxee ko moom ndax li muy xam mu mën koo jëfe ak itam ku jaar fi moom mu mën la laaye biir ndax nga mën a jëfe li nga xam ne moom moom la borom bi tabaraka wa taala dogal mu xam a ci yow su mën a jógee ci moom dem ci koo xam ne sax moo la xam-xam man faa jariñu lu ëpp li mu doon jariñu ci yow kooku dañ cee war a sant yàlla ne alhamdulilah ginnaaw diw mi doon jànge fii gis na léegi ku dàq jàngale ba ma ngay jariñu ci moom njariñ lu ëpp kon kooku noo ngi sant ci loolu noo ci sant yàlla di ko ci ndokkeel kon melokaan bu mel noonu mooy melokaanu wi euh, jaadu alxasan al basri rahimahullahu taala mi ngi wax ne boroom xam-xam mooy koo xam ne xam-xamam ak jëfam ñoo bokk nee na képp koo xam ne sa xam-xam bokkul ak sa jëf nee na kooku ab nettalikat la rek dafa am daal lu mu dégg ci aw nit mokkal ko di ko nettaliwaat loolu rek la ca am waaye su doonoon ki gën a xam bari xam-xam lool boole ko ak mën a jàngale lool itam nee na loolu lépp li muy firi mooy kooku daal ku dégg dara di ko nettaliwaat rek la loolu dong la ca am waaye nag ginnaaw jëfewu ko moom loolu amalu ko njëriñ moo tax boroom xam-xam yi asalafu saalex dañuy wax ne xam-xam bi sax su àndut ak jëf moom du fa toog su àndut ak jëf du fa toog sufyaan assawri mi ngi wax ne al ilmu yaxtifu bil amal fa in ajaabahu wa illa artaxal nee na xam-xam ki xas ba am ko jamono yu ne xam-xam bi da koy soññ ci jëf di ko woo mu jëf mu jëfe xam-xamam nee na xam-xam bi nag su ko yàggee woo jëfal jëfal jëfal mu tëj jëf ne xam-xam bi day dem yoonam da ko koy bàyyi dem seeti keneen ku koy jëfe li muy tekki mooy xam-xamul islaam xam-xam bu ànd ak jëf la xam-xam bu ànd ak jëf boobu di su ko gaaw a fàtte xam-xam bu ànd ak jëf day dem yoonam buñ ñu ci métier àdduna yi sax métier mi ngay jàng mécanicien bi ñëw di jàng mécanique ñu di ko jàngat bis bu nekk mu xëy di ci liggéey bis bu ne ñu indil ko kaabu bokkul ak ba mu doon réparé démb kooku la chaque ne xam-xamam day yokk ndax li muy xam mi ngi koy pratiquer li mu xam ci saa si rek la koy jëfe kooku soxlawut bu liggéeyee ci atelier bi ba wàcc yor ab téere di répété di xool ndax bañ a fàtte li nga xam ne moom la doon jàng ndax fi mu koy jàngee mooy ci jëfukaay kon xam-xam bépp boo xam ne dafa ànd ak jëf mooy gën a sax moo tax ñi nga xam ne dañuy jàngee seen métier ci pratique boo ko seetloo xam ne dañu juddu rek tàbbi ci atelier bi ñu di la jàngal ngay def lenn lu ne nga teg ci sa bët ba man ko kooku mën nga koo comparer koo xam ne dafa dem di jàng théorie ba yor ay diplôme boo dee réparé dara wala ngay liggéey lu dara boo leen ko boolee jox la gën a bari mooy ki jàngee métier mi ci pratique mën na caa def ci wàllu rafetal ak ci wàllu liggéey loo xam ne ki ko jàngoon ci ay kayit sax mën na koo jafe su fekkee ne jàng ba ca kayit àndul ak pratique bu mel na bi waa di jàng la chaque nag ne jàng mi soo àndeek pratique loolu mooy la gën liñ bëgg a wax kooku moo di lislaam diine jëf la yow mi nga xam ne dangaa jàng ba xam julli saxoo ak di julli waxtu julli wu jot nga dem julli te booy julli na ko jànge woon noonu nga koy jëfee kooku aajowoo di dem ci ab téere bis bu set yor jukki di jàng julli loolu soxla woo ko li tax soxla woo ko mooy jëf ji ngay jëf moo lay fàttali moo lay fàttali julli faatixa ji nga ci war a jàng nga xam ne rakka bu ne da ko ci jàng foofu joroon nga koy refusé ji fenn doo ko fàtte parce que bis bu sët nga jàng ko ay yooni yooni yoon ci kër yi nga xam ne moom ngay jàng boo rokkoo boo sujootee boo jógee ci rokkoo li ngay wax ci julli ba ba ngay sëlmal ginnaaw fas nga ko xam boole ko ak doon ab jullikat yooyu doo ko fàtte li tax doo ko fàtte mooy jëf ji kon jëfi xam-xam bi day garder xam-xam bi waaye ñàkk a jëfe xam-xam bi itam dafay sànq xam-xam bi moo tax mu ne al ilmu yahtifu bil amali nee na xam-xam moom Sufyaan Sawri su xasee ñëw rek day woo jëf day soññee ci jëf nee na su jëf amee xam-xam bi toog fi su jëf amul xam-xam bi dem yoon fa in ajaabahu wa illa taxal benn xam-xam bi ñëw wala jëf ji ñëw wala xam-xam bi moom jóg fa jëf nag li tax ñuy wax mooy jëf ju baax kon xam-xam bi bu dikkee nekk xam-xam bu wér la ca war a tegu mooy jëf ju baax jëf ju baax mooy joo xam ne ñaari sart daf caa daj sart bi ci jëkk moo di salaaxu niya wa xusnul qasd li jëkk ci sart bi tax jëf baax mooy yéene ji sell loolu moom la ñu tuddee lixlaas al ixlaas moo di nit ki li muy def yàlla moo tax mu di ko def waaye defalu ko nit su ko nit ña teewee ak suñ ko teewewul suñ ko yëgee ak suñ ko yëgul pour moom lépp benn la ni muy jëfe moom du soppi ko li muy jéem kay mooy xanaa su weetee sax jëfam day jéem a lu mu gën a baax waaye du def su nekkee ci biir mbooloo mi def jëf ju rafet su weetee def dem jëf ju ñaaw kooku mooy balance bi nga xam ne nit ki ci lay nattoo boppam ba xam li muy def sell na wala sellut yàllaa tax muy def wala keneen a muy def su yëgee ne su génnee ci mbooloo mi di julli ñaari rakka ci jàkka ji xam ne nit ñaa ngi koy xool mu teeylu ko julli ko ñaari rakka yu rafet yu teey waaye su wéetee ca kër ga moom dong ci néegam di julli ñaari rakka gaaw def ko yu gaaw a gaaw daal di sëlmal dem kooku amul ixlaas nit ñi ko tax di def loolu misaal la ci julli waaye nag yeneen jëf yi ci def yépp noonu la sarxe dugg na ci bépp xeetu def lu baax dugg na ci ki dema dema dem ba li nëbbu ak li feeñ ci ay jëfam benn la kooku moom am na tawfiq waaye nag maqaama ba ko féete kaw mooy ki dema dema dem ba jëfam yu nëbbu moo gën a baax jëfam yu feeñ su nekkee ci kanam nit ñi na muy jëfee su wéetee na muy jëfee moo ko gën su nekkee ci kanam mbooloo mi di sarxe di dindi di joxe la muy joxe nit ñi xam ne nangam la joxe su jógee di jox keneen koo xam ne yëg na ni kii digganteem ak moom doomu la kenn du ko yëg nam koy jox mooy ëpp gën kooku yàllaa ko tax di def bépp jëf nag boo xam ne àndul ak lixlaas boobu jëf yàlla du ko nangu yàlla du ko nangu te jullit bi ko jëf ñi nangu moo tax ñuy def nee na ana agna shurakaai an shirk yàlla nee na ñii bokk dara ñépp man naa ci gën a doylu ndax man amila amalan ashraka ma'i fihi gayri taraktuhu wa shirka nee na ku jëf-jëf boole ma ko ak keneen ni lii yàlla tax ma koy def ak ak diw nee na ma bàyyee ko diw ma bàyyee ko diw te su ko bàyyee diw rek yow yàqule nga su ko bàyyee diw yàqule nga ndax diw moom dafa bëgg ku ko fay tel te fay kenn dafa bëgg a jëf moom ndax mu am fayu boroomam kon kooku tel te fay kenn kon jëf ci jëmmi boppam ngir jaamu yàlla gi yàlla nangu ko faaw mu al ixlaas koo koy sàq bu njëkk bi sàq ñaareel bi moo di muwaafaqatu sunna wal iltisaamu bi shart dëppoo ak sunna loolu moom la ñuy tuddee al mutaabaa moom jëf ji gannaaw boo xam ne yàlla lay kesee tax mu ni ko def war naa jéem a góorlu ba teg ko ci xam-xam xam-xam mooy lan mooy fexe ba xam ndaw lii ñu yebaloon ci moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom jaamu yàlla gii ba mu koy def nu mu ko doon defe soo fexee ba xam loolu rek am nga xam-xam kenn ëppatu la xam-xam su fekkee jaamu yàlla gi ngay def góor-góorlu nga ba xam ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defe na mu ko jàngalee woon kenn ëppatu la xam-xam la ca tegu mooy nga jëfe ko noona soo ko defee noonu kon am nga li ñu tudde almutaabaa am nga li ñu tudde muwaafaqatu sunna kooku mooy jëfe sunna ñaari sart yooyu ne gépp jaamu yàlla buñ daje xamal ne googa jaamu yàlla danañ ko nangu moo di yàlla kese tax muy def bi muy jëf itam defe na ko ci jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaar yooyu suñ dëppoo loolu la ñuy tuddee al amalu saalih kooku mooy jëf ju baax jëf ju baax jooju nag mooy jëf ju rafet moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne li yabluwakum ayukum ahsanu amalan daf leen di nattu ngir bëgg a xam kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon jëf ju rafet ji mooy jëf ji dëpp am ixlaas yàllaa tax borom di ko def ñaareel bi borom dëppale na ko ak sunna moo tax borom bi tabaraka wa taala waxul fenn du ci alquran du ci sunna mu ne ayyukum aksaru amalan loolu amul kan moo ëppale ci yéen déedéet waxut loolu jëf ji njariñ la dekkul ci bari gi waaye la ma ci ñaari sax yooyu dëppoo jëf ci na yàlla tax na dëppoo jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na yàlla tax na dëppoo ak njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari sàrt yooyu bu ci yàpp rek jëf ji baaxatul su yàllay kese taxoon muy def waaye ñëw na seet nu ko neex mu jëfe ko noonu kooku di su ko nangu ndax dafa dañ ko yebal ab yonent ne ko toppal kii lim la jàngal jël ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju allah wal yawm al axira wa dakara allaha kathira ab yonente ngi boo xam ne mooy royukaay di gën roy leen ko su fekkee ne gëm ngeen seen borom tabaraka wa taala gëm ngeen alaxira kon su amee ixlaas te àndul ak roy yonente bi salallahu alayhi wa sallam du doon jëf joo xam ne ju ñuy nangu la jëf ju baax nag ci alquran lii wane ne lu am importance la moo di li ñu tuddee al amalu saalih boo seetloo baat boobu ci alquran ñaata yoon la rot ci alxuraan moom jëf alxuraan di ko tudde jëf ju baax rot na lu ëpp juróom-ñeent fukki yoon maanaam quatre-vingt-dix fois yoo xam ne su tuddee jëf teg ca ju baax su tuddee jëf teg ca ju baax kooku lim nuy won moo di ne jëf ji ci boppam dafa war a doon jëf ju baax kon xam nañ jëf ju baax mooy yan mooy ji nga xam ne boroom yàllaa tax mu di ko def ñaareel bi roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo noonu la ko jëfe jëf ju baaxul nag boo xoolee ci contraire bi da nga gis ne ci li rob ci xeeti jëf ci alquran moo xam borom bi tabaraka wa taala da koo tudde jëf ju baaxul wala daf koo tudde jëf rek da nga gis ne ñëw na lu mat trois cent soixante fois yoo xam ne dafay tudd jëf joo xam ne ju baaxul kon kooku daf lay won ne jëf ju baaxul yitam ginnaaw borom bi tabaraka wa taala tudd na ko lu tol noonu te fu ko tuddee dafay ŋàññi dafay wax ne lii baaxul day wax ne lii bàyyi leen ko kooku day wane ni jëf ju baaxul kon lu garaaw la lu mat a la lu baaxut la buñ xoolee nag su ñeenteelu tomb moo di tawat ji dal xeet wi nga xam ne néew na ku ci mucc moo di wax yoo xam ne àndul ak jëf buñ xoolee wax danañ gis ne wax bari na lool danañ gis ne wax ñi ko man bari nañ lool déclarer sa bopp maa mel nii maa am lii maa xam li saa maama defoon fii moo jaar fii saa bàyyi andi lii woote ci sa bopp wone sa bopp wax bari na waaye su jëf jotee nga gis ne jëf bariwut moo tax nit ñi bu fekkoon ne da leen di jël di leen xool seeni taxawaay ci xam ak jëfe wala ci wax ak jëfe wax ja buñ nee wax ñu waxi kese waaye waxuñu ànd jël engagement buñ leen xoolee danañ gis ne ñeenti kuréel lañu am na kuréel boo xam ne ñooñu dañuy woote rek wax seen làmmiñ iddia wa yaktafuuna bil ism su deew tur mën nañoo tànnal seen bopp tur yi gën a rafet ci tur yi ne noonu laa tudd mën nañoo tuddee sax seen bopp ahlu sunna mën nañoo tuddee seen bopp tur bu leen neex tànn ci tur yi wañ jàpp ne moo gën a neex ñu ne nun nooy loolu bu dee ci wàllu col mën nañoo sol loo xam ne ñu génnee nga ne gongo bu dee ci wàllu lépp loo xam ne lu ñuy wone ci bitti la bu leen neexee mën nañ laa won loo xam ne da nga naan waajaa ngi nii waaye nag foofu rek lay yem foofu képp lay yem boobu kuréel seen lépp wax la seen lépp wanewu ci bitti la waaye bu dee ci biir amuñu leneen la ca des mooy dem tëdd nelaw bu wax jotaatee rek nga jóg waxati maa ngi nii fii laa toll nii laa def maama indi woon lii bàyyi defoon lii mu jeex wala ba dem tëdd nelaw kon boobu kuréel waxi kese la am am na beneen kuréel boo xam ne yu tabbiqu lakinahu yu tabbiqu fahman manfuusan kuréel boo xam ne tawat ji ko dal daf ko dikkee ci côté jëfiin gaa mi ngi jéem a jëf waaye la muy jëfe dafa manqué dafa matul benn xam-xam ba moo matul ba tax la muy jëfe ci boppam jàpp ne lii lu wér la te fekk ndekete loola wérut kon jooje jëf am na xalal am na ayib ndax kat lislaam jëfe ci dafa laaj xam door a jëfe waaye waxuñu rek lu sa xel dem nga jëfe wala gis naa borom kaala def na ko danaa ko def ndax su fekkoon ne baabul borom kaala du ko def déedéet boo loolu lislaam bu waxee noonu lislaam day wax ne xamal ne lii lu wér la lu sax ci alquran la wala lu sax ci sunna la nga door a jëfe kon ñooñu danañ jëf waaye jëf gi ñuy jëfee jëf ji teguwul ci siraatul mustaqim dafa dëng dafa manqué wala sax mi ngi jëfe lu baax waaye dafa ñëw rek jël benn tomb ci lislaam yemale ko ca yee ca def yépp mu wan ko gannaaw nga gis koo xam ne day wax ne jaamu yàlla xam lislaam lépp jàng rek la jàng jàng di jàng di wéy rek te doo gis mu jëf mu dëgg la lislaam jàng ngi ci biir waaye du lépp <coughs> nga gis koo xam ne na muy jëfee mooy lislaam léppam jaamu yàlla rek la ma ngay julli ma ngay woor ma ngay def koori ngàtt ga ma nga ciy sonn waaye yeneen ba dee ca des déedéet amuñ soxla nga gis koo xam ne lislaam lépp daf koo xool ci kaw ne jàpp ne lépp pas-pas la mooy tawxiid mi ngi wéetal yàlla mi ngi wattandiku xabru yi mi ngi wattandiku lépp loo xam ne xeetu bokkaale la mi ngi koy wattandiku waaye yeneen bunt yi ca des mu sàggane ci bu dee ci wàllu jëflante boo xoolee gis ne jëflante ga des na bu baax ci wàllu jikko nga gis ne jikko des na bu baax kon jëf jooju nga xam ne dafa manqué ñàkk a xam dana ko indi sóobu am ngir moo xam ne wala li ñu tudde manhaj boo xam ne dafa dëng dana ko indi te loolu mooy indi jël lislaam jàppe ko benn tomb ngay jëfe tomb boobu bàyyi yeneen yi ci des lislaam lépp la lislaam pas-pas la waaye lislaam jaamu yàlla la lislaam jikko la lislaam jëflente la jullit bi ci jëmmi boppam faw mu dajale yooyu yëpp beneen ñetteelu kuréel bi mooy kuréel boo xam ne yafhamul amra ala xaqiqatihi lakinnahu la yaamal ñoo xam ne moom xam nañ bu wér nañ ne yëf yi kat nii bu dee ci wàllu fas-fas day xam na ne nit ki moom lii la war a fas fas tawxid la war a doon bokkaale waru ko laal fenn bu dee ci wàllu jaamu yàlla ci théorie da lay wax ne yonent bi képp lañu war a roy bu dee ci wàllu jikko mën na laa fanaanee waxal ci jikko yu rafet ba suba kon kooku xam na boobu kuréel ñooñu xam nañ bu wér waaye nag dañoo xam ba noppi seen xam-xam ñu teg ko fële kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu jëkk ñi dañ ne wuyey xam nañ te xamuñu la ñuy liggéey mooy waxi kese ñaareel bi mooy ñoo xam ne ñu ngay jéem a jëf waaye jëf-jëf dafa manqué manqué gu méttee métti wala mu dëng ñetteel bi mooy ñoo xam ne dañoo xam ba noppi ñoom teg ca seen tànk li yées ci ndëngte yi nga xam ne dana dal nit ci biir diine mooy ndëngte goo xam ne nit ki daf koo dëng ba noppi xam ko waaye mënta bàyyi ndëngte boobu ndax daf cee am intérêt manaam daf cee am njariñ dafa am njariñ lu ko dëng ki di jariñ nga xam ne dafa gëm ne ndëngte gii mu nekk bis bu fi jógee rek moom njariñ li mu doon jariñu duutu ko jariñu boobu ndëngte mooy yës ci ndëngte yi lu tax moo di boroom ngir mu bàyyi ko day jafe lool ndax intérêt ba mu ciy jëlee su fekkee bidaa la pour dindi ko ci dana jafe su fekkee mooy yàlla dindi ko ci dana jafe su fekkee ne jëfiin wu dëng la ci biir charia itam dindee ko ci lu jafe-jafe lay doon ndax lu tax mooy dafa doon lu dëng loo xam ne moo la gën a xam ne du nii waaye nag am na intérêt bu ko ci dikkal moo xam intérêt boobu intérêt alal la wala intérêt daraja la wala intérêt pouvoir la bu ko nit ñi fu ko nit ñi yëkkati ba deg ko fa su ko defee kooku moom ñu mën a wax lu ne mooy lii moom na fi rek moom fi jóg ndax su fi jógee rek intérêt ba mu doon séentu duutu am beneen kuréel bi leen ñeenteel te mooy ñi gën a néew ñooñu ñooy ñi nga la borom bi tabaraka wa taala bàyyi xel ci kaw suuf moo di ñi nga xam ne ñoo xam ba noppi di jëfe mooy ñi nga xam ne ñoo xam moo xam lañ xam néew na moo xam bari na waaye fexe nañ ba tegu ci siraatul mustaqim la ñuy xam ña koy jëfe boole ko ak sellal yàlla kese moo tax ñuy def boole ko itam ak teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ñooñu ñooy at-taifatul kuréel bi nga xam ne ñoom la borom bi tabaraka wa taala dimbali ñoom la dëgëral mooy ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëggal xeetu lislaam ne jamono yuñ toll yu nekk dana am kuréel bu nekk ci kaw suuf boo xam ne li yàlla wàcce woon te digle ko ci la ñuy jaar képp ku mën a juyoo ñoom it du leen wàññi dara ku mën a juyoog ñoom itam du leen wàññi dara kon kuréel boobu muy kuréel bi am solo ci mboolem kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo am du caagi ni nag am mbooloo lañ la ñuy doon ñoo xam ne dañuy jekki-jekki rek organisé wu ñu ne ñi ngi nii ñu ne ah ñeekat ñooy ab taifatu mansuura kon mu jeex déedéet loolu du organisme waaye melokaan la kon nit ki mën naa bokk ci benn organisme sax fekk moom jenn jëmm jooju boo wëttuwul mbooloo man bokk moom dong moo ci bokk ci taifal mansuura ca penku wala ca sow nga dem ba feneen am keneen koo xam ne ci taifal mansuura la bokk fekk la ko def moo di ci melokaanam pas-pasam wér na ay jaamu yàlla mi ngi tegu ci sunna bu fekkee ne ay jikkoom ak i leen la mi ngi ko teg ci siraatul mustaqim teg ko ci sharia kon képp koo xam ne melokaan yooyu dëggu na ci yow ak foo mën a nekk ak noo mën a tudde sa bopp tur woo mën a am ak nu la nit ñi mën a tuddeel seen bopp xamal ne kooku ci kuréel bi borom bi tabaraka wa taala dëgëral ci la bokk ñooñu ñooy ñi borom bi tabaraka wa amal solo ñi nga xam ne ñeneen ñu dul ñoom amuñu solo yàlla na borom bi tabaraka wa taala boole ci ñooña tàkkale wax ak jëf nag dafay lu ñaaw a ñaaw te rëy borom bi tabaraka wa ci aaya bi ubbee dégg ngeen mu ne kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taalamuun baatu maqtan bi may tàmbali wax naa ne moo gën a rëy ñu ne loolu lu bon la waaye dañu wax ne àgg na ci sànja sànja waxiin la boo xam ne moo tiim lu bon maanaam dafa bon lool lool lool li lay won ne wax ju àndut ak jëf bon na moo di baat bi sunu borom tabaraka wa taala jëfandikoo foofu muy ci maqtan jooju ci ñeenti yëf la ko yàlla jëfandikoo ci alquran ci ñeenti jëf kepp la yàlla melal wax ni lii maqt la maanaam sànja la yooyu mooy yan bi ci jiitu mooy alkufr kéefër kéefër borom bi tabaraka wa taala tuddee na ko sànja nee na huwa alladi jaalakum xalaa'ifa fi l ardi faman kafara fa alayhi kufruh wala yazidu alkafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidu alkafirina kufruhum illa xasaara kon nee na borom bi tabaraka wa taala moo leen wàcce fii ci suuf si ah di leen digal ngeen jaamu ko ku weddi doon yéefar nee na kéefaram ci kawam rek lay del siwaat du ci lor keneen waaye nee na yéefar yi seen kéefar gi maqt la leen di andil sànja kon nga xam ne baatu maqt baat bu rëy rëy rëy rëy la ci ci alxuraan kon kéefar mooy fi ko njëkk a tudde beneen bi ci des mooy aljidaalu fi ayatillahi bi gayri sultaanin wa ilm di werante di werante ci diine yàlla ji ci loo xam ne tegoo ko ci xam-xam werante ci diine yàlla ji ci loo xam ne teguwul ci xam-xam kookoo tam bàkkaar bu bon a bon bu rëy mu di yor sam xel léeg-léeg da ngay dégg diine ji nit ñi dañ koy fooyee ñoo leen di ubbil bunt ngir ñu werante xam nga li ñuy wax lu ciy sa xalaat di ne ah man de nii laa ko gisee sama xalaat nii la loolu agul ci diine wax sa xalaat àggul ci diine diine wax yu la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcce ci ab yonentam